yéen a ngi teewlu seen seen Rewmi 24 TV. bisimilah dal leen ak jàmm campagne bi mu mel ne jamono yi daal di nay metti lool ci côté ñi nga xamee ne ñoom ñoo di waa opposition bi. mu mel ne euh, benn euh, campagne rek moom moo fi am ca waa Pastef ñoom ñoo koy daal di def ndax kat ñoom ñooy dajale mbooloo mi waaye ki nga xamee ne moom moo doon Amadou Ba mi nga xamee ne ñoom waa opposition bi moom nag la ñu gën a yaakaar moom mii di Amadou Ba jamono yi mi ngi daj nag lu metti fi ñuy wax ak yenn yi moom mii di Amadou Ba nekk ji nag dañ ko nag daal di humilier foofa ci Rufisque dañ ko nag sonkorisé sonkorisation bu daal di méttee métti nag bu ngeen toppee euh, bi la vidéo di ngeen ci gis nag sonkorisation bi nga xamee ne euh, def nañ ko ki nga xamee ne rek moom moo di Amadou Ba moom Amadou Ba jamono yi mu mel ne moom sax kii di premier ministre Ousmane Sonko mi nga noonu saako ci moom nag ñoom ñaar ngir ñu daal di def li nga xamee ne moom moo di débat waaye fi mu toll nii boobee débat dafa mel ne nag du mujjee nag am waaye fii ñu wax ak yéen daal campagne bi daal dinay metti lool ginnaaw noonu bi ñu gisee ki nga xamee ne moom moo di euh, Barthélémy dund waaye ki nga xamee ne mooy di Papa Djibril Fall ñoom ñooñu ñëpp jamono yi ñu ngi nag daal di dund lu méttee méttee métti waaye kon daal fii ñu wax ak yéen ki nga xamee ne moom moo di Amadou Ba moom Amadou Ba jamono yi nag moom ak convoi euh, ñi nga xamee ne ñoom ñoo di nag patriotes yi ñoom nag ñoo leen daal di nag sonkorisé daal di leen di nag humilier humiliation bu doy doy waar ñu nag teewlu vidéo bi nga xamee ne euh, foofe foofee ca moom mii di Amadou Ba euh, doon na fa def li nga xam ne moom moo di ab euh, campagne am euh, ngir nag jëm ci législatif 2024 yi mu mel ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Rufisque nag may ñu ko jaamu benn yoon fépp fépp. sénégalais sénégalais ak a neex sénégalais moo neex xoolal waa ji Amadou war na Amadou Ba sax dafa tiit sa waay bracelet la takk muy clignoté tuuti mu ébuli bu bu xoolal xoolal bracelet waa ji bracelet Pastef la de Amadou Amadou sa waay mii da lay sóob de kii nga mën a de lu leer laa lay expliqué nii seetul waa rek muy clignoté mel ni aéroport lii. <laughs> mu ngi noonu kon ñoo ko daal di déggandoo ci ki nga xamee ne euh, moom moo di nag euh, kii di amadu Ba moom amadu Ba jamono yi lii lay dund ci nag campagne électorale bi nga xamee ne euh, tey jii la ñetteelu fan mu mel ne moom Amadou Ba daal di nay nag tumuranke nag ci wàllum mbooloo moom amadu Ba ay otoom bari na waaye nag jamono yi ñi koy dar mu mel ne rek boo xoolee doo gis benn nit rax ci dool yi fépp fu mu taxaw rek dañu koy daal di sonkorisé ndaw ñi la ñu koy wax mooy sonko sonko mu mel ne bile campagne mu mel ne sonko sonko ba ki nga moo di Barthélémy Dias ndaw ñi ñu bi nga xamee koy bañ moom euh, Barthélémy Dias mu mel ne sax fi mu toll nii ñenn ci ndaw ñi la ñu ko tuddee mooy Laay Sangara Laay Sangara nag benn ba théâtre la woon boo xamee ne ka ci nekkoon nag acteur bi moom da nag daal di nag mandi euh, loolee waral ñu bari nag daal di nag askanale ki nga xamee ne moom moo di nag Barthélémy Dias Laay Sangara ñu teewlu li nga xamee ne jamono yi ñi ngi koy wax ki nga xamee ne moom moo moo di nag Barthélémy Dias mi nga xamee ne jamono yi fu mu toll rek ma ngay menacé ak yëngal di nag euh, def yu arrogant jëmale ko nag ci askan bi mu mel na ñu bari euh, la ñu ko jàppee rek mooy euh, moom dafay waayan maanaam day nak jël li nga xamee ne moom moo di bidéol bi ba nga xamee ne lu bari lu muy wax du ci nag bàyyi xel kon ñu teewlu li nga xamee ne jamono yi ñi ngi koy nag bàkkee ki nga xamee ne moom moo di nag Barthélémy Dias fépp force na ci réseaux sociaux yi loolu lañ koy wax moom mi nga xamee ne moom moo di Barthélémy Dias ñu teewlu Barta xamul naan ba xamul fu mu ne ñëw taxaw di xasteeg di saaga waaye ku jàng ba xam doo defee noonu politique. foo leen fekk dañuy mer seetlu ngeen loolu foo leen fekk dañuy mer suba ngoon job ku ci koo ci dégg muy wax sax Ousmane Sonko Ousmane Sonko seen campagne yëpp Ousmane Sonko la. kaw ñetti nit topp la. buñ la ñaax li kenn doon wax dañu naan coppet. li kenn doon wax dañu naan coppet mu ngi noonu kon nag ñoo ko déggandoo moom premier ministre coppet yóbbu comme ni ñu ko defee ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany mi nga xam ne jamono yi ma nga foofu nag ca Bakel ni ki suba nag la war a jàkkaarloo li nga xam ne moom moo di procureur ndax dañ koy libéré am dañu koy àtte am déet mi ngoog kon suma ak jaamu daal narul yomb ci ki nga xam ne moom moo di Bougane kon mu mel ne fi mu toll nii daal campagne bi daal dinay nag neex lool ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Pastef waaye nag waa opposition bi moom. moom jamono yi ña ngay nag souffrir bu baax a baax a baax ku ci mel ne Barthélemy Dias waaye it ku ci mel ne Pape Djibril Fall Thierno Bocoum Khalifa Ababacar Sall mu mel ne daal ñoom ñii fi mu toll nii ñu ngi dund lu méttee métt nag waaye kii di Déthié Fall moom teel naa xool boppam teel naa xam boppam ba daal dinay rocceeku jamono yi mi ngi ànd ak nag Ousmane Sonko di battre campagne moom mi nga xamee ne moom moo di Déthié Fall kon daal fii ñu wax ak yéen nii ñu tourné ñoom rek la ñuy di dégg waaye it ñoom rek la ñuy daal di gis mu mel ne kon euh, élection yi daal ñu bari la ñuy wax rek mooy euh, cent cinq cent cinquante députés euh, la nag Pastef fas yéene am ci élection yi ñu daal di jëm le 17 novembre 2024 jërë ngeen jëf.